الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد شفيع المذنبين وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله bokk yi noo ngi leen di nuyu di leen siyaar kaddu yiñ ci wax ñi ne jiitu jaar nañ ci ba noppi ndax ni ko sëriñ Habib Gaye waxe ak sëriñ Modou Kara ak sëriñ Xaadi Jaxate day mel ne ni ñu ko waxe suñu ko fasee noonu kenn doyoon na ci sëkk ndax ku ci mën a waxe pas-pas bi ak xalaat bi lenn la liñ ci toftal daal mooy ñaan sunu boroom subhanahu wa taala ñi nga xam ne liggéeyal ko ci téereem bii moo nu tax a jot ñun ñëpp nii ñu fi dajee tey mu may nu kàttanal nu ba nu dajawaat fi ci lu yàggut ubbi ko tàmbali liggéey bi ci jëmmi liggéey bi ci boppam te araf wu ci waaye xam lu yi na ko yàlla nangu di sant bu baax a baax nag Sering ablay Busu abdullah Busu mi nga xamne ci barabam le mbir mi jappane ak ñu jaar ci seen yoxo yépp muy serigne Omar ak ñu fi ñep te ñu laal ci ba ci serigne mustafa mi nga xamne duñu ko soxla ci mom lañ ko jaaroon yalla na fay di ñaan sëriñ Xaadi Jaxate mu jot ñu suñu nuyoo ak suñu ziar ñun mbooloo mi yépp ci sëriñ Xabbaan mi Cheikh Mouhamadul Muntaqa xafidahullah wa nasarahu wa tawallah dénk lépp luy daara ak la ca aju ci biir dëkk bi di ko ñaanal moom sëriñ bi ak ñim jiite ñépp yàlla boole ñu fi bàyyi ba ni mu ko waxe woon ba muy teg doj bi jëkk ci jàngukaay bu mag boobu muy liggéey loolu yit dama ko koy àbb rekk jëfandikoo ko ci mbooloo mi ndax ba mu waxee ba ci digg daa yëkkati ay yoxoom ne bu mu laal suuf wax ca it ne buñ ca defee lañ ca man jaarale ko ci aw yoon ñan fi wuutu yet buñ ñëwee yanuwaat ko ba tegaat ko ci yeneen yox dem na lépp jàppandi kon ñu ngi sant bu baax ci déggale gi ñu yalla boole déggale nonu ko serigne Modou Kara waxe serigne Abib jaar ci dañu xam ci sun xel mu gatt dajale ab lim ci alal jox ko jëm ku ne xam na ni alal moom la ca nekk mooy la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon rek ne lu amul njariñ fa mu jóge du jariñ dara fa mu jëm njariñ jëm ca tudd nag su duggee ci yenn loxo yam fa mën naa jariñ kenn waaye mën naa néew ndax bu ñu xoolee suñu jamono li ci gën a fës mooy denc denc moom du jariñ ka ko denc du jariñ la muy denc xanaa mu de mu denc ko nii ngeen ko denc dénk ko ki ngeen koy dénk muy yàlla moo tax ba nu ko dajalee xaw mu woon na sax dana agsi fii waaye dama leen ne lii moom xam nañ ne ñi ko dajale daj nañ ci ab coono te kenn ku ci nekk soxla na ko te lañ ci bëgg man mënuma ko te ñu ko bokk dénk ko yàlla seet loo xam ne buñ ko ca defee aw nit dana ca jariñu aw nit jariñu ci ñeneen jariñu ci ñeneen jariñu ca ñoom nag ñu xalaat ne ku fexe ba nit xam soo ko jëfe mën naa jariñu te njariñ la ko koy jariñu la yonent bi waxoon ci weeru koor ne ku dogal nit te fekk moom mii dog la mi ngi dana am ab yool bu tol ne ki mu jox ndogu tam woor te du yàq dara ca ndogu koor euh, yool ba mu war na am ci kooram nga moom mi joxe ndogu kon noo ngi leen di sant bu baax ci déggoo googu yal na ko yàlla barkeel waaw kàddu yooyu daal lañ amoon ci liñ fas lépp jafe nañu génne ko waaye na ñëpp fa yéene ànd doxandoo te di geesu ñi ci ginnaaw te ku ñu nekk ku ñu jiitu ñu nekk ko na ko sëriñ Saliou Mbacké waxoon ne noonu la fa yéene ànd ak noonu kon boog euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu wax daal euh, jeex na jëfa السلام عليكم ورحمة الله يا كتاب الكريم أنت حبيبي وقليلي وكنت قبل تبي wa حتى كان